bismillahi rahmaani rahim baada audu billahi min asheytaani rajim inni audu bika wa durriyataha min asheytaani rajim rabbi audu bika min hamasaati shayatin wa audu bika rabbi an yaxdurun barka cheikhul xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di siyaar yi ñëpp di jiital ci siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko moo ngi njabootu sëriñ Tuubaa gépp ak gépp kilifa ko jub tey jubal ak fu mën a nekk ci mbaaxu sëriñ bi di siyaara bu baax jëwriñ ni liggéey bi di sëriñ Afiya Buso di jëwriñu Muxaddamatul Xidma ñu nuyoo ci kàddu sëriñ Mouhamadou Ndiaye mii jëwriñu subulu salaam ak euh, Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga moo yor bànqaas bi foofu ci subulu salaam ñuy siyaar yi suñu jëwriñ yi nga xam ne moo féete ci Espagne gépp diaspora bi sëriñ Assane Diop tey jii nag euh, ñu ànd ak seen Cheikh Kan mi euh, tubaab Bilbao doon indi seen ëddee yi nga xam ne moo jëm ci waa Muxaddamatul Xidma xam naa di ko yëgal waa subul salaam képp ñu teewal ñu teew fi teewal leen fi ñoom ñëpp comme liggéey bi moom liggéeyu sëriñ bi la kenn ku ci nekk bu fi teewee man koo teewal mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk ci liggéey bi xanaa di gën soññaat rek suñu bopp di soññaat ñi bokk ci liggéey bi ñu xam ne liggéey bii nga xam ne moom lañ sasoo ci liggéey bi Sëriñ Tuubaa bii nga xam ne mooy jumaa yi xam ne kenn ku ne ci ñun dafay waroon nekkoon dafay waroon a nekk di doxal li ñuy doxal comme nag suñu borom tegg nañu ko bàyyi leen fi li nga xam ne mooy tax ñu ne fi te mën na waggar li nga xam ne mooy liggéey bi fokk ñu ñu ñu ci ñuy béy waar suñ kemt lay kattan kon képp koo xam ne daa nga ci def ñoo ngi lay soññ nga gën a yokk sa positif koo xam ne it maanaam réere nga liggéey bi ñu xam ne liggéey moom nii rekk lay demee lépp sëriñ bi la kon ñoo ngi ci soññ suñu bopp ci soññ yëpp moom lañ doon jébbale nii ñu toog ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Thierno nga xam ne moom la yàlla dogaloon bi mu ñëw Touba Bilbao àndoon ak sëriñ Maam Morum Cheikh Mourtada leeraloon ñu liggéey bu na mu demee ba joxe ci doxu doxin boobu ñu ci doon dox mbir nag li sëñ Blaat daan wax doo ko yëkkati ba ñëpp gis ko nga di ko wàccee te te ngant taxut kon nañu xam ne liggéey bi moom bu ni ko sëñ bi waxee ki fi ne bu mu laal suuf nañu fexe fexe ba ndam li moom nay jëm kaw saa su ne te sëñ Tuubaa moom am na fule ju day ne day jël coono bi bàyyi la ak sag bi nga defe ne lenn nga ca fekk doonoo ci dara kon ñoo ngi suñ suñ suñ bopp suñ ñëpp ñu gën ci góorgóorlu xam naa kàddu yi. duñ ko guddal dañ koy yemal foofu rek di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi min asheytaan wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, suñ ñu ngi lay nuyu bu baax nuyu sëriñ Seex Kan di nuyu bokki jullit yi ñuy seetaan yëpp ak fuñ mën a nekk ci bitim réew ak ci biir réew mi waaye di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te ko di am mbégte bu baax ci dalal leen tamit wuutu fi kilifa liggéey bi di jëwriñu daayira Muxaddamatul Xidma di Sëriñ Afiya Buso da ngeen jóge ci moom léegi wuutu fi bureau Muxaddamatul Xidma maa ngi fi teew nag ak Sëriñ Modou Mbakke bokk ci kilifa yi yor liggéey bi ak Sëriñ Mun Njaay Mbeng ngir ñu wutu fi yeneen kilifa yi nga xam ne e, teewuñu di am mbégte bu baax nag ci dalal leen ni ko suñ jaga waxe léegi Touba Bilbao ne ñun mat nañ ci seere lool ci seen diggante ak jumaa ji ci seen diggante it ak pas-pas ak ci seen diggante ak bëgg lu baax ndax dem nañ fa demati fa bu yàggul rek ci biir euh, bi ñu bëgg a màggal ci mois de juillet bi ci fin juillet rek dem naa fa ñëw naa fa waaye euh, ni nga ko waxee depuis 2012 bi nga xamee ne ànd na ma ak sëñ Mamor ci ndigalul daayira Muxaddamatul Xidma ñëw fa ba taxaw ci mbooloo mi leeral liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ñu dégg ko defaatuñ ci dara daanaka euh, seen gis-gis bu rafet ak seen xam te xàmmee ca saasa lañ dajaloo ne ah liggéey bii ñu fi leeral kat ci liggéey yi gën a am njariñ la bokk kon nañ fexe ba seet nuñ ci nosoo ñun ba di ci jëf ci saasa ngeen ci taxaw nos ko wut coordinateur am ku ngeen ko denk muy Sëñ Fallou Dia moom it mu ñor ko lool di ci taxaw taxawaay bu rafet kon nag loolu lépp su amee jëwrin yaa tax jëwrin yaa nag ñu ciy jiital sëriñ Mamadi Ndiaye mi nga xam ne moo jiite liggéey bi liggéeyu daayira Subulu Salaam ak fédération bi nga xam ne ñoo wër Bilbao yëpp ñoom ñëpp ak dëkk bu mën a doon ñi nga xam ne ñoom ngeen di àndal di def màggalu Touba ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen sant ci jëf yi weesu yëpp ak jëfi tey jii nga xam ne ñëw na te ki nga xam ne moom ngeen koy jëfal te tax ngeen koy jëf nga xam ne moo am pay muy Sëriñ Tuubaa yal na leen fay te ful ko te sekkil ko te sekk gi moom am nañ ci yaakaar ndax Sëriñ Abdu Xaadir moo waxoon ne euh, biñ ko laajee ne ko jaamu yàlla ak Tuubaa ak feneen mu ne ah yàlla ak Tuubaa moom jàpp naa ne ci yi gën la bokk ndax jaamu yàlla dafiy sekkee loolu tamit mooy firndeel ne kon fii di xolub Tuubaa muy jumaa ji nga xam ne mooy symboliser sëriñ bi mooy wane ak kennalam sunu borom ak dundal gum dundal sunu Yonent bi sallallaahu alayhi ndax loolu taxoon mu santaane ñu defar ko du soorool yu gudd ak tabax bu rafet rek dafa bëggoon képp ku koy dégg ak liñ ko tum soo ñëwee fii gis diine ji ni muy doxe ci niñ ko nose nga gis tamit niñ jëmmale diine ak niñ ko fonke nga xam ni kii li ko taxoon a jóg weesuwut ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan kon liggéey bii ngeen fi indi nag day dugg ci liy taaral barab bi lu yor wàllu entretien bi ak liy taxawuñu fi nekk ni ko ni ko Cheikh Mouhamadul Muntaxa waxe woon ne na ngeen góorgóorlu ci matériel bi matériel mooy bale serpillière liquide bu ñuy nettoyer ak sensé pile yi ak ventilo yi waaye tamit na ngeen góorgóorlu ci luy taxaw ña fa nekk loolu tamit nag Touba Bilbao desuñ ci ginnaaw moo xam ci koor la moo xam ci entretien waajal màggal gi ak ci social bi ñu def yëpp kon daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan ci barkeb sëriñ mu fay leen te ful ko ni ko waxee tamit nag ñu ngi soññ bokk yépp euh, sëriñ dafa wax ne utlub wala tajarra min madlibi fa afaatu taalibi an yajarra alaa tara alxabla li takraarihi fi saxrati shamaa'i qad ashara na ngay sàkkute bul dellu ginnaaw wala nga nga nga yee xamtalu ci li ngay sàkku ndax loolu bokk na ci màndarga yi nga xam ne day yàq jëf mu ne xanaa gisu leen ak buum ni mu woyefe ak ni mu gase pindub teen te pindub teen doju simaa wu tëx lañ koy defaree kon nu mu def ba ba man koo gas paxamu xoote noonu kon yàgg guñ ca yàgg baamu la rek kon nag sagam daairatu subulu salaam exemple lañ ci Espagne ci wane aw yoon kon ku fa nekk liggéey yiñ lay woo war nga cee gën a farlu war cee gën a góorlu ba fañ koy jëmee mu kawe njort kon ñi ngi sant di gërëm ci lu weesu ak tey waaye di soññee niñ ko sañee ndax kenn lañ ci yéen ñoo bokk liggéey bi kon yàlla na yàlla dëgëral te képp koo xam ne nekk nga fa sunu borom gën laa may xéewal yoo gën a mën a liggéeyal sëriñ bi ak ay jumtuwaay ak wér ak ak gudd fan barakati xaadim rasul darajay waxte awaaiji lazina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.